auzu billahi minal sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp ñu ñëw ñu may déglu di bëggoon rek antu si déclaration bu président Idriss Seck def mu jëm ci Palestine ak Israël te mu indi polémique bu rëy wax ji nag waxu seede la rek dama nekkoon ak moom ay at bokkoon ci ñu ko jege lool di préciser que ne nekkoon naa ak moom nekkatuma ak moom fas yéenewuma dellu ci parti ba ma nekkoon loolu dama koy leer incha allah loolu dama koy leeral rek pour li ma bëgg a wax li may seede mooy président Idrissa Seck nit ku bëgg diine lislaam la président Idrissa Seck lu may seede te ma xam ko te ma dund ko ak moom nit ku bëgg alxuraan la président Idrissa Seck li may seede te mu dund ko ak moom mooy nit ku naw ku bëgg ku fonk yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la mu wax am na njuumte mën na am ci nit nit ku dul juum amul jéggalu am na nañ jéggalante parce que ñun ñépp ci njéggalum yàlla lañu yaakaar pour texe ëllëg maa ngi jéggalu ci kàddu yi maa leen di gërëm di leen sant jërëjëf